من أجاب asalaamaaleykum sunu mbokki téléspectateurs yi ni seetaan ci biir réew mi bitim réew euh, ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen balu àq te sàkku ngeen balu àq jataay bii bi ko gisee ñu toog fi te ci kanamu sëriñ Mountakha Mbacké mu Cheikh Ahmadoul Bassir yàlla na fi yàgg te wér di jàmbaar joo xam ne lislaam gépp wax naa ko ca Ndakaaru ñëpp la bëgg yal na yàlla mottali sa yéene yal na yàlla mottali sa yéene ci lislaam ak it nag ci yoonu wii nga xam ne mooy si yoonu teg la bët li nga bëgg yi nga xam ne yàlla ko yàlla def sëriñ bi tey nag ñëw nañu fii ci région de Kaffrine euh, ci arrondissement sous-préfecture Malem Hodar jataay yii ñu toog ngeen gis gouverneur ak le sous-préfet lu ko waral mooy bis bu rëy boo xam ne tey teewoon nañ ko fii ak jëf ju joo xam ne fow àddina bépp bëgg nañu dégg ko ndax kuy liggéey kuy liggéeyal yàlla ba liggéey bi tubarkàlla ñu gis ko ndax ñi ko gis man caaro yi sëñ Muntaxa ci jëf lu rëy la dëkk waaye ci wax lu baax ci la dëkk tey jii nag daaru minam jii ñoo fekk ko fi muy kilifaam xam ngeen ni Cheikh Modou Bachir jàmbaar ja jàmbaaru sëriñ Touba ja fii jataay bii 1967 1968 un an après du mu làq ci suñuy bët mu ñëw sañ dëkk mu yéeneem mu sanc dëkk bi mu gor ko waaye sëñ Moustapha euh, euh, jàmbaaram ji def ko sëñ Moustapha mu Cheikh Amadou Bachir rakkam ji tey nag sëñ Mountakha egg la lépp tey dëkk bi Daaru Minam Saalum lépp ngi fi waaye mbakk yal na yàlla mottali sa yéene ñu ñu fek fekk fii njabootam waa ña fekk fii nit ñoo xam ne tubaarkàlla waa dëkk bi yëpp a ngi nii toog ànd ak télévision réew meeg ak bitim réew xam naa ne bala maa sori sax danaa jox kàddu gi Serigne Kosso Mbacke mi nga xam ne tey moom lañ fi fekk tubaarkàlla euh, mu mottali ci kàddu yi bu ko defee ne boo ci kanamee bu na àggee ba ci bitti la ñuy tëju ñu tëju ko. Serigne bi noo lay ziare bu baax a baax di la sant bu baax la ñaanal sa borom may la yàgg ak wér-gu-yaram ba sa yéene àgg ci toolu lislaam boo gis nii bokki jullit yi fi teew yëpp ak bokki taalibe yi nuyoo bi itam ñu di ko tàmbalee nag ci gouverneur mi nga xam ne mooy gouverneur de la région de Kaffrine di Mouhamadou safaa Dieng di koo xam ne ku woyof la ci biir waaye ku diis la ci liggéeyam ku mën liggéeyam la ñu di ko gërëm bu baax ci ñëwam fii ndax ak woyefam rek moo ko indi waaye mënoon na bay ñëw bu ko neexoon ndax mi ngi ànd ak ay surgaam yoo xam ne mat nañ sëkk kilifa bu leen yabaloon itam dana doy sëkk ci noonu ndax mi ngi ànd ak le préfet département de Malem Hodar Guèye géey Guèye moomu yàggu fii bi mu fi ñëwee yàggul waaye xam nañu itam bu baax xam nañu taxawaayam ndax def na fi tournée de prise de contact fii ci daara mi ak gox yu bëree bëri di nuyu chef service régional yi mu àndal yëpp régionaux yi mu àndal yëpp tàmbalee ko ci docteur euh, Doucouré mi nga xam ne tey moo nekk ci région bi ci wàllu wér-gu-yaram di nuyu sous-préfet Darou Minam moom itam mu ànd ak collaborateur yi yëpp le préfet itam mi ngi ànd ak mboolem si ay service départementaux yëpp ñu ngi ànd ak ñoom ndax gis nañ fi superviseur bi nga xam ne moo fi taxawal docteur chef de district bu Malem Hodar gis nañ fi ki nga xam ne moo yor wàllu éducation ci département bi gis nañ fi itam ki nga xam ne moo yor wàllu eaux et ci département bi defe naa ne ñi fi teewul tey ci département bi bariwul wala ku fi teewul sa représentant teew na fi su préfet teewee ko moom it collaborateur yi ma wax le chef serre mi ngi fi jàngalekat yi ñi ngi fi ñoom ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ci wàllu administration ñëpp ñi ngi fi waa mairie bi it ñi ngi fi ci njiital seen kilifa da am loo mbooloo mi nga xam ne itam ñoo dëkkee ci gox bi ñëpp ñi ngi fi dara taxul nag ñëw fi tey lu weesu sëriñ bi dafay nekk ñëw fii ci këram goo xam ne ci kër yi boppam yi la bokk mu ñëw fi ngir yoon yam fi daan ñëw seet si këram seet si njabootam seet si taalibe yi seet si waa gox bi yëpp muy koo xam ne ñépp a ko bokk bi mu ñëwee nag dafay jiitaloon jëfam jëf joo xam ne jëf la ju ñu ju ju neex waa réew mi ju neex waa dëkk bi ju neex waa waa commune bi ak fu ñu fi mën a nekk ak sax ji nga xam ñoo jey commune bi ñëpp mu neex leen lool saf leen lool muy lu jafe woon ci ñoom loo xam dañ ko doon wut ay ati at te mënuñ ko woon a am dem nañ bay cotiser te mënuñu ko am muy gox bi ku ne xam na ne dafa sore lool te ruqe ba doon ci tubaab dañuy wax ne dafa enclavé mu xaar mu sori lool ruqe lool naqare dem lool ndax ñàkk yoon loolu danaa ci dellu si ndax loolu itam le gouverneur am na ci wàll kon danaa ci dellusi bu baax waaye ci ruqe googu mu ruqe nag ak jafe googu mu jafe tax na sëñ bi mbooloo yàgg fee tumuranke lool ci wàllu wér-gi-yaram koo ci xam ne wér gi yaram àgg na ci jéggi fajkat yi nga xam ne ñoo fi nekk danga nga daan tumur enquête lool loolu la yóbbu Mbàkke mbaa tubaa wala Kaffrine ñu di ko jooytu bu baax fu ne ñu dugg fa ñu ma ko waxee léegi dem nañ bay cotiser wala ñuy jël cotiser ci seen i kees sax te taxul ñu mën koo am ndax ku ne xam na ne réew mi neexul ci jamono yi loolu moo tax biñ ci lottee sëñ bi yëg loolu daal leen ji wutal benn ambulance boo xam ne xamoon na ci seen yitte xamoon na ci seen lot xamoon na ci seen aajo andil leen ko fii teg ko ci seen loxo caabi jaa ngi nii danaa ko jox góor gouverneur léegi ci ndigalam. mu jox ko teg ko ci loxol mbooloo mi nga xam ne ñoo ko seq ci ndigalam. ba mu ko defee nag gox bi bëgg ci lool am ci cant lool koo xam ne nañu koo wax. ci seen làmmiñ dañ koy mën a yëg rek ci seen xol xanaa lañ ci mën a feeñal néew bari ñu feeñal ko loolu moo taxoon tey ñu ne danañu danañ woo seen dëkkandoo yëpp woo bépp autorité boo xam ne da ngaa nekk ci région bi te yàlla dogal tey jii sëñ Mouhamed Moustapha Dieng mi ne ci bopp bi ak la préfet département ak le sous-préfet de l'arrondissement ñoom ñëpp ñu ne woon danañ leen woo tey ñëw fii ci dëkk bi ñu feeñal seen mbëkkee ci seen kanam loolu moo waral daje bi bi ñu ko defee itam alhamdulilahi rabbil alamin woo nañ leen bu baax waaye ñoom itam wuy si nañu njaboot nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tey jii ànd ak ñoom bokk yànd ak ñoom ba nag ni si ñu bëgg leen a jot li seeni cant ak seeni i ngërëm ci sëriñ bi wax leen itam seeni aajo yi nga xam ne moom moo ci des ñu war leen cee jàppale aajo yi nag li ci jiitu tey mooy xam ngeen ni ci gannaaw ci fan yi ñu weesu dañoo amoon benn jéey ju rëy ju amoon ci hôpital bi te mooy mboolem lu fa doon ay garab ci genn guddi dafa jékki-jékki lakk ba nga xam ne dara desu fa te ba takkoon na lool ndax romb na ñaari million lu matul ñetti tam ba ba tax na loola gàllankooroon na lu bari ci liggéeyu wàllu dispensaire bi ci liggéeyu paj mi ba am na fan yoo xam ne am na ci ñu doon dem ba njum ngeent ñenn ñu doon dem ba jaaga loolu nag jafe-jafe la boo xam ne lu fii jafe-jafe bu bu bu bu bu rëy la bu bu gàllankoor la boo xam ne gàllankoor bu métti ci ñoom la loolu moo tax bi ñu ko waxee sous préfet xëy na lam ci war a def def na ko moom itam alhamdulilah la préfet def na ci lim ci war a def la gouverneur def na ci lim ci war a def waaye tey fii ci jataay bi ñu di la ñaan di la yóbbante ci le ministre la santé ak le président de la ñu xamee ko noonu jàppale nu ci ndax waxuma la jàppale ci lu tax euh, garab yi mën a am waaye ñu jàppale nu ci lu dolli matériel bi nga xam ne moo fi am jëf ji nga xam ne sëñ bi def na ko itam ñu gën koo yaatal ba nga xam ne mbooloo mi dañ ko yëg seen bopp jàppale leen itam ba nga xam ne bis bu ñu demee ba war a mën a am poste poste de santé la ci jamono yi ñu toll waaye ku ne xam na parce que centre moo ci topp te buñ sañoon itam ñu def ko centre ndax yaatu na gannaaw lool ndax ndax commune boo xam ne daanaka wet goo ko tàllale mu mat fanweeri kilomètre boobu boobu commune du commune caaxaan du commune bu ndaw. Mm-hmm. kon commune la boo xam ne bari na lu ay département di di di aajowoo di ko mérité di ko war a am te fekk na fii di war na fe mën a am kon nag loo itam ñu bàyyi ko xel bis bu seen xel nekkee ci soppi. fii bokk na ci barab yi nga xam ne soxla nañ fi centre mm-hmm. dëgg la loolu cant rek moo nu taxoon di daje waaye ginnaaw nag jóg yombul daje yombul te yow monsieur le yaa ngi nii dañoo am nag yeneen aajo joo xam ne moo gën a kawe ci suñuy aajo mu yoon bii nga xam ne mooy départ fii ci Daaru Minam dem Ndioum Ngent départ waat fii ci Daaru Minam dem ko yoon la woo xam ne yàq na lu bari ci dëkk bi ci développement dëkk bi tardé na lu bari ci développement gox bi tardé na lu bari ci wàllu santé nit ñi ak santé seen i waruwaay loolu nag tax na ba ci jotaay bii jotaay bu solennel bii noo ngi la ci ñaan nga dolli ci say jéego bind ci la ministre travaux publics wala boo kayor loola ak sax la président de la république ba mu xam aajo ji nga xam ne dëkk bi am na ko ci loolu te am ci ay jafe-jafe yu wóor te nekk mu nekk itam gàllankoor bu wóor ci barab bi barab bi nga xam ne moom la ñu nekk tey kon loolu noo ngi la koy ñaan gannaaw bu ñu la santee ci sa ñëw fii tey am na yeneen doléance yu bari waaye defe naa ne am na ci loo xam ne xëy na réew mi fa toll buñ ko weesoo danañ ko weesu waaye ñaar yooyu moom suñu yitte la mooy li jëm ci wàllu dispensaire bi ak li jëm ci wàllu yoon woowu may wax xëy na éducation am nañ ci ay points yu bari yu ñu ci dese xëy na ci yeneen wàll am na yuñ ci dese waaye li am solo tey ñaar yooyu moom la yóbbante nga xam ne mooy sunu aajo tey ji nga xam ne moo gën a kawe. buñ ko defee ba noppi nag ci turu mbooloo mi sëñ bi ñu ngi ne mbooloo mi yëpp sant bu baax. am mbégte lool ndax nit sant boppam nit mënta sant boppam mënta la muy jëf sax léeg-léeg mu jëf loo xam ne xëy na fa muy àgg sax boo ko yàlla xamul mën na ko bañ a xam waaye nag na nga xam ne. lii nga def ci gox bi gox lu rëy rëy rëy loo xam ne ci liggéeyalu su waxuma la liggéeyalu àdduna waaye liggéeyu suñu borom yi ci la bokk ñu ngi sant la ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala mu dolli la ak wér te dolli la aw fan te dolli la sa bëgg-bëgg te xam nañ ne mooy ngërëmal sëñ Tuba ngërëmal sëñ Tuba nga xam ne mooy sa yitte yaakaar naa lu la waaye ñaanal defe naa loolu moo ci moo ci gën a jafe kon noo ngi lay sant di ñaan nag nga santal nu gouverneur ndax bi ñu ko woowee ci mbir mi te mu ñëw ci nga santal nu ko bu baax ndax sa cant mooy gën a jot santal nu préfet bi mu àndal santal nu itam mbooloo mi nga xam ne moom la ñu àndal di ma ci ci profité ci waa dëkk bi ñoom itam ñu xam ñoo dañoo am kilifa ndax am na loo xam ne sa kilifa rek moo la ko mënal am na loo xam ne kilifa rek moo ko man ndax nit mën naa demal boppam di jéem a demal boppam di jéem a ne amul kilifa waaye yaara ngi ni saa su amee kilifte bi dellu fa mu nekkoon adduna soxla du ci nekk du ci du ci mën du ci mën a ñàkk soxla su të du ci mën a ñàkk te saa su amee kilifa dellu fa mu nekkoon jafe-jafe du ñàkk am te amee kilifa dellu fa mu nekkoon kon na ngeen gën a xam ne da ngeen a am kilifa na ngeen gën a xam ne da bootu ci gannaaw kilifa te bootu googu ngeen di bootu ci gannaaw kilifa lii tax mu rafet lii tax kilifa gi sawar a dox lii tax kilifa gi sawar leen a geesu loola du dara lu weesu man ak ànd ak na nga ko wéy ci ndigal te ko bàyyi ay tere nit bu nangoo wéy ci ndigal nangoo bàyyi ay tere faaw mu am mu am dam faw mu am xewal faw mu am gërëm kon loolu maa ngi ci woo ñëpp di di di di di te lañ soññ bu baax a baax a baax a baax itam di doolee sant sëñ bi di doolee sant autorité yëpp euh, jataay bi gàtt na waaye le sous-préfet bi nga xam ne moom lañ dëkkal nag duñ ko mën a ñàkk beral mm-hmm. du xaw ma mention spéciale ngeen koy xaw ma waaye duñ ko mën a ñàkk beral mbirum boppam ndax nag ko am taxawaay la ko am yitte la ku mën a boole nit ñi la euh, jafe-jafe bu mu am bu am ci dëkk bi bu koy yëgee buñ ko nangulee du ñu dem fenn ndax lim ci war a dox dana ko ci dox ku baax la ku am yitte la chef service yi nga xam ne itam ñoo fi nekk day service arrondissement ñoom itam sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen dëkkandoo yëpp tey euh, ñu ngi leen ñu ngi leen di sant maire euh, maire maire maire Ndiounguent ñëw na mi ngi fi kon moom itam mënuñu ludul sant ko bu baax gërëm ko ndax xam na ne Daaru Minam ak njub ngeen xam na ne benn lañ kilifa yi Mbabane ñëpp ñëw na fi siyaare si sëriñ bi kilifa jaaga Alaaji Asan ñëw na fi barki démb sëñ Asan Faal mu ngi ci jataay bi kon loolu euh, sëñ Basiru Jenn moom sëñ Naar démb fi la yendu kon mën naa wax ne du ma genn kilifa bëgguma lim sax sëñ Jili Mbay Madina Mbay ñëw na fi démb fi la kon loolu mel na ne daal sëriñ bi euh, taalibe yi bëgg nañ sëñ Tuubaa bëgg gu wóor bëgg gañ koo bëgg na te seen lépp sëñ Tuubaa tax na ñoom ñëpp na not nañu sa gannaaw lu ko waral sa bëgg sëñ Tuubaa sa soññee ci kaw sëñ Tuubaa sa soññee ci yoon sëñ Tuubaa ak sa doxinu bopp boo xam ne ku ko gis mën na koo roy ku ko gisut tam dégg la ngay wax dana ci mën a sukkandiku dana ci mën a dox donc ñun ñëpp di gërëm ñëpp di baloo ak di tuub ci yëkkati gi kàddu euh, di ko jéggalu na mu jéggal jéggu leen déggu leen wa gën a euh, toroxlu euh, ci sa kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah taxa suñu mbàkke ñoo ma délégation bii ma àndal ñu jóge ca Kaffrine ak ca Malem Hodar ànd ak préfet ñu fekk fi sous préfet ak ñi ci nekk ñëpp ñu di la nuyu na mu gën a selle di la ziyaare it na mu gën a selle du suñu tur sax waaye nag ci turu président Macky Sall nga xam ne moo jiite réew mi premier ministre ak gouvernement bi yëpp xam naa dañuy wax rek jëf jure yi nga xam ne jëf nga ko tey te njëkku ci te yàlla na nga ko jëf lu yàgg yàgg yàgg ci suñ kanam ndax loo yëkkati rek luy dundali yoonu murit ak jëm ci taalibe yi jëm ci yëpp boo loo def rek ci loolu la jëm kon jëfi tey jii ci loolu la rek lay duggati sëñ koso wax na ko ci nu mu gën a rafete xam na it leen mooy njëriñal li nga jox fii ci dëkk bi mooy ambulance bi mbiri wér yaram xam nañ ni mu toll ci nit ñi ak lu ca nit def rek mu lu koy gën a dooleel day jéego yu am solo te gouvernement bi it jox na ko ak xam di ci def lu mu mën waaye it xam nañ ni mu amee solo ba lim ci yéene yëpp mënu koo defandu lépp kon lu ca nit dugal rek da koy dimbali da nga koy dimbali xeet wépp jëf ji cay ci loolu lay dugg ndax xam nañ ambulance ni mu baaxe fu ñuy faje pour ña fay faj bu ñu demee ba jàpp ne kii war nañ koo yóbbu feneen ñu mën koo def ci waxtu ñu ko war a defee te buy tamit mu nekk ci condition yoo xam ne condition yu baax la kon xam nañu ambulance médicalisée loolu lay nekk kon nag ñuy sant rek ak gërëm ak rafet ci taxawaay bi xam ne moom nga taxaw xëy na lii lépp sax bu ma demaatee ca ndaje ma naag fa wax ci kanam ñëpp waaye ñu lu ko rek ba lañ faa yëgg wante wax naa ko léegi ne loo def rek du jëm ci ndigalal sa maam ju tedd jëla sëriñ Touba su waajur bu tedd ba sëriñ Bassirou te yaa ngi may wax fii léegi ne ci ndigalam nga amoon ñëw jox la nga sanc fii kon ku xam fi nga ko teg xam nañ ni amul lépp amul lenn loo jombale fii ndaxte foo toll rek ci dundal lu mu defoon ci loolu ngay xëy ci ngay gont kon moo la yebaloon fii xam nañ ne lu fi war a am lu la ko yàlla joxe da ko fi def kon di ma jàpp ne lii du lu tàmbali sax ndax def nga fi leen lu ko jiitu waaye comme na nga daa def lii ca loolu lay ñëw ànd ci rek te it lu ne it lu fi war a ñëw rek saa yoo ca déggee loo ca man da nga ko def kon day ñaan rek yal na sa taxawaay yàgg amiin nga yàgg fi lool lool lool ak wér-gu-yaram gi yokk lool ak man gi ak lépp rek ci kanam sa njaboot ci kanam taalibe yi kanam yépp ci gannaaw it sa kilifa sa sëriñ sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ak waa Kër Sëñ Tuubaa yëpp gàttal daal sëñ bi kàddu ji lañ bëggoon indi teg ko ci sa loxo di gërëm nag di sant ñun yàlla ak nay dox bañ fekk la fii ci Daaru Minam Saalum gi ñuy ñaan rekk di la delloo gërëm waaye la jox suñu ngërëmal bopp ngir uh, fonk bi nga fonk ak yëg bi nga ñu yëg te loolu jàpp nañ ne suñu jëmu jëru ko xëy na dundal ay kiiwu kilifa ya nga xam ne ñoom laa jóge loolu dong moo tax waaye dëgg yàlla ñu ngi sant di ñaan rek yal na yàlla yokk man gi ak kattan gi mu yàgg lool jërëjëf. loolu kay waaye maanaam ñoom kilifa yu baax yi nga àndal rek si gàttal eh, eh, ñu ngi nuyu bu baax eh, di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi bu baax a baax a baax di gën a dolli suñu yaakaar itam ci kanam dëkk bi. ñooñu maa ngi eh, maa ngi gën a sant suñu borom bu baax eh, mi ngi booleeg Sëriñ Tuubaa sant Sëriñ bu baax mi nga xam ne mooy suñu lépp eh, lii lépp tey jataay bi lépp mbégte ndax dëkk bi biñ ko jég léegi xam ne nañu ñeen fukki at ak juróom-ñeent leen foofu foofu la tolloogoon te fii yëpp àll la dëgg la sëñ bi moo moo joxoon ndigal dama jox ndigal li rek yàlla def fekk boobu sax daanaka xam nga naa fi soriwul ba mu tàmbalee wàcc ba ni mu wujjee boroomam loolu la bu ci jox ndigal fekk na Serigne Moustapha itam xamoon na mm, jox na ma ndigal bi ma joxee ndigal te eh, yàlla def fan yooyu ci jamono yooyu mu wujji boroomam ñu toogee ab diir tool ci weer ñaari weer laa ci waxtaan Serigne Moustapha mu ne ma ah de xam naa sax yaa ci amoon ndigal waaye xamoon na ne ak sëmbuma te man fu ma fekku sëmbum danaa ko àggale loolu moo boole fii loolu moo boole fii daal eh, dinañ jiital nag ca ndigal la na ci sama gannaaw ci sama wàll yëpp nu ànd ko ba eh, lépp taxaw mu defaat ca eh, ngor gu rëy ndax mooy sama kilifa boo ci dugal woon daay boo ci dugal woon daay dara te du am ci man benn jeexit waaye mu sedd ci ngor gu rëy wax na nag ginnaaw for nañ ba def kër gi ba fi léegi na nga man eh, ay tool rek laa fi wut loolu moo waral Darou Salaam bi ngeen jëpp eh, moom laa fi ay ay tool laa fi am eh, samay doom yi ay tool rek lañ fi am daal defal fële kër ga tool yi féete fële loolu moo waral sëñ Mourtada doomam mu woon ko fi. wax nañu dëkk bi ak tool ak li ci des lépp itam ci sama tur la koy def loolu mënoon na ko bañ a def waaye si ngor gu rëy la ko defee xam naa ngor boobu bu baax a baax kër gi yeeg dëkk bi yeeg lépp def ko sama lépp lu mu ci penn itam wax ne bu ma ko mujjee bu ma ko mujjee gannaaw maa moom lépp bu ma ay sama njaboot moo ko moom loolu moo loolu noonu loolu di di di jëf ju rëy yoo xam ne. kon bu mu dee dem ba dëkk bi agsi fii mu loolu jàppoon naa ni xala xalaatu ni lii dana mu fekk ndax ñeent fukki at ak lum ñeent lépp lu nekk ci taxawaayu nguur gi seen yitte seen jëf loolu suñu furu suñu pëstif àgg rek ci eh, sëñ Bassirou joxoon mi ci ndigal sëñ Moussa ànd ko man ba mu jeex ma ànd ko moom eh, loolu lépp dëgg la ci pëstif rek lañ ko sukkandiku waaye dafa mel ne pëstif bu mu ci am rek nguur gi am na yitte joo tollu ànd ko noonu ndax loolu yàggul te lépp ngi fi tey te loolu lépp ci taxawaay nguur gi rek la eh, travail travail baa ngi nii courant ngi fi ba seex su préfecture bi nga xam ne moom gën a bett sax mu am fi ah loolu euh, jamono soppiku ba mu ak si ba ak si fii mu ak si loolu ma fekke ko loolu man sama cant ci wàllug taxawaay adduna rek loolu man genn cant mënu ko weesu maa ngi sant bu baax a baax euh, di yeesal cant gi nag ci seen teewaay bi yow euh, sa gouverneur préfet mi nga àndal ak kilifa yi ngeen ànd yëpp ngeen bokk teew fi si loolu li yàlla dogal rek la ndax moom euh, ambiance bi euh, Thierno di wax euh, ñun suñu taxawaay mooy taxaw fi seen wet rek jiital leen ci lépp luy seen luy seen luy seen lu leen di gën a yombal seen liggéey ñun sëñ Tuubaa bi mu fi ñëw defar addu yàlla rek ko tax a jóg boole wu ci dara raxu ci dara fi ñu ko gisee ba ñu fa gis waaye yàlla ci moom ci coobareem moo ko ci boole adduna waaw kon boole gi ko ci boole adduna loolu kon dafa mel ne defar adduna defar alaxira loolu rek moo moo ko fi andi woon moo ko moo ko fi andi woon loolu yi danañ fi bàyyil a nekk nun war no set lenn loolu eh, taxaw temm ci lépp loo xam ne njëriñal jaam ñi la ak ak ak lu mu mën doon rek loolu loolu loolu dañ leen caa war a jiitu eh, ànd ko yéen bo ba ba ba loolu jeex takk ci lépp loo xam ne nag ni ngeen ko bëggee eh, bëgg réew mi di di wéy loolu ala kulli xaal nun loolu dana war a wet ànd ko ngeen eh, eh, jàppale leen ci dimbali ci ba rek fekk na nun yombale leen ko loolu am na bi ci yàlla sax loolu foofu rek lay dugg du du dara loolu mu amoon kattanam taxawaay boobu ci réew mi laa koy laa koy laa koy taxaw te loolu mooy mooy mooy képp ki ñi ma bokk sëñ Tuubaa loolu mooy suñu warteef amul benn amul benn bés lu taxaw temm ci lépp luy njëriñal jàmm ñi tey ak ëllëg lépp luy njëriñal nit ñi tey loolu nu nekk fi seen di di di def teg ci suñu wartif ba takk ci lépp lu ci noppal lépp lu leen ciy dimbali lépp lu leen ciy may ndab loolu dañ ko doon loolu loolu daa bokk ci suñu liggéey kon nag ginnaaw doxal na nii mu doxee ci diir mu am te loolu nguur gi def ci li mu def lépp ba si bi tey. ngeen day fi nii fi daje mooy ba tey lu yàlla dogal rek ndax man de 2011 laa fi gëjoon eh, ah programme mu woon itam ñëw fi ñëw fi ci jamono yi waaye lu yàlla dogal eh, dañ mm, ne ne seen. seen bëgg la te xam naa ni itam suma wartif la ñëw fi ba gis leen ngeen leen a ñaax ngeen leen euh, gis ñu gën nekk ci li war nekk loolu ma xam na loolu ñëw bi moo ko euh, war naa def waaw ma def ko rek loolu rek mu fi andi euh, yàlla dogal nag tey yàlla ci yow ci woon dogal bis bi seen ndaje mi tey ndaje mi nga xam ne waroon lu ñu waroon a la lu ñu waroon a lu ñu waroon a wut la eh, ba muy agsi loolu yàlla jombal ko ci ñi ma ko yombale ndax man eh, xalaatu woon ne xëy na mën naa am mën naa fay ñëw tey ren fa ñëw ndax ba léegi ñëw ma fi eh, waaye nag kon lépp ci dafay dellu ci sëriñ sëñ Tuubaa rek ci ndamal sëriñ sëñ Tuubaa rek la ak xaas xam ne sëñ am na ko ci moom moo waral jotaay bii du loo xam ne lu ñu faggu la daa daa war a bokk ci li nga xam ne moo war a doon suñu yitte mooy euh, waxtu woowu muy jëf loo xam ne ndawal seen toile moo moo moo ciy kon li ñu ko faggul itam waaye fekk suñu faggul na lépp liñ ci ndamam rek la bokk ci xaaral suñu euh, moo war a tey jii daje bii nu fi daje muy daje boo xam ne nag waroon waroon a faggu la lu yàgg yàgg di ko xam di ko wut di ko seet boobu mën a am. yàlla yombal ko ni mu ko yombal kon nag noonu gannaaw bu ñu santee suñu borom di sant sëriñ bi ñoo ngi leen sant yéen kilifa yi ànd ak gouverneur eh, bokk jotaay bi tey te eh, xam ne it ci rek ngeen ko defee ndax eh, yi bare na jot di bare na lu ngeen bàyyi woon gannaaw lépp ñëw ba ba teew yàlla dogal nu bokk teew loolu wax dëgg yàlla ñu sant leen ci gërëm bu mat sëkk ci xam ne mel ni kon yéen waxtu wu ne ngi seen wartif euh, kon noo ngi leen di ñaan rek euh, ñaan président ak euh, mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd moom ci liggéey bi na ci yéen ñi nga xam ne yéen leen fi yéen leen fi kon noonu di ñaan bu baax a baax suñu borom mi nga xam ne mooy def mooy dindi noonu ñaan di barke Sëriñ yàlla yombalal seen i liggéey defar leen ko te doon leen ci ay ndam eh, yëngutu yëpp itam yàlla def ci barke ba eh, réew mi gën seen taxawaay eh, bu gën mën a jëriñoo seen seen seen seen liggéey noonu ñaan loolu bu baax ci baax suñu tool yàlla it sàmm leen te bàyyi leen fi wéral leen yàggal leen lool te may leen kattan ngir mën a seen yéene fi ngeen bëgg Euh, euh, dox seen warte bi nga bëgg dox euh, muy réew mi àgg fa mu war a àgg ñoo ngi ñaan bu baax a baax moom ci ay ndam ci barke bu lépp xëy ñu ngi sant nag mboolem nag ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk yi tey nga xam ne am na ci ñu bëri fi leen fi leen fekk xam naa sori wuñ sax ak digg fi waaye noo ngi sant ñëpp mbokk yi mbokk li suñu mbokk taalibe yi nga xam ne noo bokk Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp ñu nga xam ne ñun ñëpp eh, yëg nañ eh, dëkk bi te Sëriñ Tuubaa a tax ñu ko eh, ànd nañoo ci lépp. moo waral moo sama dikk bi ñu ko ko déggee yàggul waaye ñëpp ñëw nañ fi lépp ngir sargal si ma lépp ngir Sëriñ kon noo ngi sant ñëpp ñëpp koo xam ne ñëw nga fi. wala nga bëgg fee ñëw te yàlla dugalu ko loolu ñu ngi sant di leen bu baax a baax. di leen xamal ne wala lu am lu se lu seq noonu lañ koy gën a fas yéene sàmmal bu baax a baax fas yéene ko ànd ak lépp ci jaamu yàlla ak dëggee seen def na ko tey mu doon mu doon jëf ju rëy ndax ki la jàngal alxuraan mbaa ki la faj mënu koo fay ci lislaam kon nag sëñ Muntaxa lii nga defal waa Daaru nam defal ko région bépp ak gox bi yëpp tabarkàlla yal na yàlla sot lépp yu xëppaat la ko te xëppaat séddee moo ko séddee waa dikk bi jox leen ko muy ambulance boo xam ne tabarkàlla oto bu baax médicalisé. fi teew ñépp kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi le gouverneur de la région ak préfet de département ak délégation bi nga xamante ne si ni ànd nañ jóge ci région ba ak ci département bi ñëw fii ci Daaru Minam di nuyu di siyaare sëriñ bi euh, ki ko fi teewal ci ndaje mi di maam Thierno Mbacke ñoo koy nuyu di ko siyaare ak njabootuk sëriñ Muntaxa Basiru gépp di leen siyaare di ñaanal kilifa gi yàlla suñu boroom yàggal ko fi dëgëral taxawaayam may ko wér ak kàttan di kontaan bu baax a baax ci teewaayu gouverneur ak départ ak euh, préfet du département ak mboolem ñi nga xamante ne si ni ànd nañ ci délégation bi ñëw fii ci Daaru Minam saa plus tard dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne si ni mooy li waral jataay bi muy suñuy kilifa gi nga xamante ne si ni suñu yaakaar tey ak ëllëg defati na ko te muy loo xamante ne si ni yàgg na koo def muy jël ab ndimbal bu am solo boo xamante ne si ni lottoon nañ ci nenn lu nekk doon nañ ko def pour am ko mu jël ko jagleel ko askanu commune Daaru Minam gi yëpp kon loolu ñoo ngi ci kontaan di ko ci ñaanal lépp li nga xamante ne si ni ah moom la ci doon bëgg ba def ko suñu borom defal ko ci lu kawe njortam di sàkku rek ci euh, gouverneur de la région ak département euh, préfet de département lépp li nga xamante ne si ni jëm na ci wàllu santé damay wax ci euh, département bi yëpp benn centre de santé la ñu am te yaakaar naa toll na foo xamante ne si ni département Malem Hodar war na amaat beneen centre de santé te nag yaakaar naa buy amaat benn centre de santé jaadu na ñu def ko fii ci Daaru Minam non seulement chef lieu euh, chef lieu d'arrondissement la waaye tamit sori na sori wa enclavé na enclavé boo xamante ne si nii li ci moom nekkul feneen ci biir euh, département Malem Hodar ndax boo jógee fii bala ngay dem Touba rek di nga def lu jege téeméeri kilomètre boo jógee fii jëm Kaffrine wala nga jëm département Malem Hodar bala nga àgg di nga di def loo xamante ni dana jege 60 kilomètres te yaakaar naa ne jafe-jafe boobu noonu boole kook lépp li nga xamante ne si nii moom ngay traversé yoonu suuf la. kon yaakaar naa Daaru Minam sori na sori goo xam ne ci wàllu sante war nañ ko bàyyi xel tey sante yaakaar naa fi ñu toll nii droit la boo xamante ne si droit la boo xam ne euh, citoyen bu nekk daf cee war a jot Euh, gouverneur ñoo ngi ñaan nga jàpp ñu ci loolu ak préfet de département ak ñëpp ñi nga xamante ne si ni ñëw nañ ci délégation bi ci wàll woowu. di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante teew si ngeen fi yëpp population yi chef de village yi CPF yi jeunesse bi ak parce que ku xool organisation bi ni mu demee sa xel war warul dem ci leen lu ñi nga xamante ne ñoo ko taxawee muy jeunesse bi kon ñoo ngi leen di jaajëfal euh, di leen jaajëfal jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Basiru di ci teg monsieur le gouverneur di ci teg monsieur le MCR de la région médecin chef région di ci teg monsieur le préfet départemental de Malem Hodar di ci teg monsieur le président du conseil départemental de Malem odar di ci teg monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Darou Minam 2 di ci teg monsieur les maires de Darou Minam 2 de Ndiobène Samba Lama et de Ndioum Nguent di ci teg le médecin chef du district de Malem Hodar di ci teg les chef de services départementaux yi fi ñëw tey di ci teg samay collègue samay naataango yi nga xamante ni ay chef de service leen te nekk ci gox bi di nuyu askan wi yëpp ñiñ fi invité ak ñi fi dëkk kon monsieur le gouverneur permettez-nous de vous présenter nos salutations les plus chaleureuses et les plus cordiales tout d'abord remercions à Allah subhanahu wa son prophète alayhi wa salam et notre vénéré guide Khadim Rassoul de nous avoir donné l'opportunité et la chance d'assister ce jour grandiose qui sera marqué dans nos vues. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour recevoir l'ambulance médicalisée offerte gracieusement par Serigne Muntaha Bassirou Mbacké au poste de santé de Darou Minam Pour rappel, le poste fait partie de la commune de Darou Minam et couvre une population de 9220 habitants et offre des services de santé primaire, curatifs, préventifs et promotionnels. Le poste est distant de son centre de référence, Malem Odar, de 74 km et des établissements publics de santé de Touba de 86 km et de Kafrine de 94 km. Il a pour cible pour la vaccination des enfants de 0 11 mois 360 enfants Et pour les consultations prénatales, 360 consultations. Et pour la planification familiale, 2120, pour citer ne serait-ce que ces indicateurs. Cependant, nous vivons des difficultés pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés à cause de l'inaccessibilité de la zone, le déficit notoire de personnel étatique stable et un manque de matériel de soins. Aujourd'hui, nous sollicitons aux autorités administratives locales et religieuses un désenclavement de la localité, un recrutement du personnel et un équipement des structures sanitaires de la localité en matériel de soins et logistique roulante. Particulièrement au poste de santé, euh, au poste de santé d'Aruminum 2, suite à l'incendie survenu le 21-11-2015 dans son dépôt, dont les dégâts sont entre autres des pertes en médicament des outils de gestion et un local complètement endommagé. Face aux défis multiples Nous, nous sollicitons un mur de clôture pour le poste de santé, un appui en médicaments essentiels, la construction d'une nouvelle maternité, du matériel de soins, des lits d'hospitalisation et du matériel de bureau. Nous sollicitons aussi une source d'énergie alternative, le recrutement du personnel qualifié. Maintenant, nous lançons un appel de soutien aux partenaires, aux bonnes volontés et à la population à s'investir davantage pour faire le poste de santé de Darou Minam 2 un hôtel de soins. Monsieur le gouverneur, Mam Tcherno brahim Mbake, en rapport avec le comité de santé et l'ensemble des populations bénéficiaires de cet important outil, nous voudrions vous rassurer que des dispositions idoines seront prises et mises en œuvre pour une bonne gestion de cette ambulance au bénéfice des populations exclusives. Je ne saurais clore ce discours sans remercier notre guide Serigne Muntaha Bassirou Mbaké, ses fils et ses petits-fils, aux autorités et aux toute bonne, toute bonne volonté suite aux efforts consentis après l'incendie du dépôt de médicament Le comité de santé et l'ensemble de la population, par ma voix, vous en remercie énormément et demande à Allah de vous combler de bonheur, de bienfaits et de paix. ainsi que toutes vos familles je ñu baal ma ma jàllale ko tuuti ci wolof hmm. ay cant ak ay ngërëm mooy doon ci ñuy kàddu ndax tey lott nañ lool ci wax kër gi dañ cee bokk rawatina tey bañ taxawee ki nga xam ne moom lañ yaakaar tey ëllëg toog di ñu seetaan muy sunu sëriñ bu baax bi di sunuy kilifa di sunu lépp lii nag dafa mënta ñàkk ci wax ji moo tax ñuy wax askan wi di ñaan autorité yi di ñaan képp ku fi toog ñu jàppale poste de santé poste de santé Darou Minam 2 pour mu nekk référence loolu lu koy andi jàppalante fexe ba lii nga lii ñu soxla ci yoon yi ñu mën ko am muy désenclavement ñu may ñu ay yoon may ñu matériel waaye ñu jàppoo ba defar suñu dispensaire bële ba mu nekk otel boo xamante ni ku fa nekk ku fa ñëw doo yàkkamte ñibbi gërëm nañu sant nañu ñëpp di ñaanal ñëpp ñi fi ñëw ñu ñibbi ci jàmm ak salaam di ñaanal ñëpp ñu fi ñëw ñu am tawféex di ñaanal ñëpp ñu fi ñëw ñu am réussite ci seen entreprise waaye di ñaanal kilifa gu tedd gi ñu defal lii di ambulance bu baax bii nga xamante ni tey sonnoon nañ ci balaa ñu koo jot ndax sunu évacuation nekkoon na lu jafe ndax ku xam daaru minam xam ne enclavé na waaye bari na suuf kon donc oto yu bakkane xëñ na mënuñ koo am pour doon euh, jëlee fii sunu malaat di ko yóbbu tuubaa tey nag bu ñu yàlla baaxee ba ñu am ambulance bi kon yoon def na ñu gërëm sunu euh, sunu njiit gërëm sunu sëriñ muy sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké te ñu ànd ñun ñëpp ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg te mu ànd ak wér gu sax dakk dakk dakk ak njabootam ak képp ku ko yaakaar wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi fi teewu yëpp maa ngi gërëm baax di tàmbalee sama nuyoo ci kilifa yu tedd yi fi teew tamit ci wàllu administration gouverneur de la région de Kaffrine Mouhamadou Moustapha Dieng di ci teg le préfet département doomu Adam Guèye ak le sous-préfet de Darou Minam itam monsieur Ousmane Sané noonu la ñu nuyu bu baax di nuyu ñi fi teew ñëpp ci kilifa diine sëriñ Abdoul Ahad moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir ñu ngi ci sama loxo ndeyjoor sëriñ Cheikh Ibrahima Mbacké lii tànku sëñ Muntaxa di loxoom lii muy toog sama ndeyjoor sëñ Cheikh Baali Daaru Minam mi ngi fi sëñ Mouhamadou Moustapha Bachirou mi ngi fi ma leen di nuyu baax ñoom ñëpp di nuyu mbooloo mii fi teew ñëpp dëkk Daaru Minam ak ci gox yi nga xam ne ñoo ko jege di leen sant bu baax ci seen teewaay waaye danaa ci dellu si monsieur le maire moom ñu ngi leen nuyu bu baax yow ak ñi nga àndal ñëpp moo xam chef service la bu bokk ci département bi la wala bu xam ne moo gën a kawe ci région bi la wala sax muy koo xam ne day liggéey ci administration waaye mu nekk fii ci gox bi ci daal bi la ñu ngi leen di bu baax di leen sant di leen gërëm. ci seen jaraay bu rafet bii ci sunu bis bii di bis boo xam ne bis bu rëy na ci ñun bis bu neex la boo xam ne bu ñu sañoon mbokkook jullit yëpp kon bu ngeen ñëwee teew ci seen teewaay bu rafet bii ànd ak coono yi ngeen jànkonteel kon ñu itam mu ngi leen ci sant bu baax di ci am mbégte bu baax a baax bis bi nag dara warul ko lu weesu bisu cant la rek la cant rek la su boroom dafa bëgg boo la defalee nga sant ko bu fekkee daf laa defal loo xam dafa ko def daf ko jaare ci sa moroomum jaam moom itam nga sant ko loolu moo tax bis bi bisub cant rek laa ko mën a ci jëf joo xam ne nag sunu kilifa defal nañu ko comme ni ngeen ko xamee léegi ni jëkk a wax wax bi mu ko defee nag mu jëf ju rëy joo xam ne neex na jullit yëpp neex na réew mi yëpp neex na taalibe yi waaye neex na dëkkandoo yi neex na daal ci gàttal citoyen yi yëpp muy loo xam ne dëgg na defar na ko gox bi waaye defe naa it defar na ko administration ndax administration nag li état bëgg na citoyen boo xam ne dafay amal njëriñ réewam day am amal nit ñi njëriñ itam te lii bokk na ci lii firndeel ne citoyen yi tolloowuñu yemuñu citoyen lañu yoo xam ne am nañu man ba noppi am xol bu ko def kon loolu ba mu ko defee rek ba noppi dañu ciy sant yàlla bu baax defal na ko réew mi defal na ko borom bi mu dëkkal demal na ko taalibe yépp kon taalibe yi bu ñu wëlbati koo bëgg koo dellu siwaat nag sant ko man defee naa ne am nañ ci sañ-sañ bu wóor a wóor mooy ñi nga xam ne nañ ci gox bi waaw ni ma nga waxee sànq fii ci Daaru Minam gox la boo xam ne bu yoon ñàkk demukaay rek ba tey danaa ci ñëw nga xam ne fi jigéen jàppoo wala mu am koo xam ne dafa am maladie bu di koo xam ne jar na ñu yóbbu ko ci yeneen fajukaay yu gën a kawe du yomb loolu moom ak ak ruqi foofu la ko dee kon nag ruqi googu mu ruqi ak jafe-jafe yooyu mu jafe te muy joxe li mu joxe doon loo xam ne yombul ndax jéeg population yëpp jéemoon nañ ko seen bopp àggoon nañ sax di ko jéem a cotiser te taxul ñu man ko mu ngay xëy defal leen ko ci ak jàpp ni te seen dërëm ñëwu ci loolu itam wax dëgg yàlla cant war la ci bu baax a baax kon sëñ bi moom population bi yëpp mbooloo mi yëpp ñu ngi koy sant jox na ma caabi ji ko góorlu góorlu teg nag di loxo meer mu mu war da war koo teg ci xam ne ñooy saytu wàllu santé fii ci Darou Mouhty ñu di ko ñaanal nag moom Cheikh Mamadou Moustapha yàlla bàyyi ko fi wéral ko fi may ko mu dund fa ba mu soog ko may ko itam mu ànd ak kàttan te ànd ak wér ak tal ak man barke di dénk itam ñi nga xam ne ñoom lañ ko teg seen loxo mu saytu ko saytu bi mu gënee loolu sax alhamdulilah dégg nañu ICP bi le premier chef de poste ci ay kàddoom nit ñi dajaleen loolu di ko di ko di ko di ko di ko di ko wax góor ñoom ci yéen juñ ci am ngeen taxawaay taxawaay gën a rafet loolu itam kon moom moom la góor ñoom ko autorité bëggee noonu la ko sëriñ bi itam bëggee ñu ngi dellu si waat sam di xam ne mbirum santé moo nu fi dajale cant gi rek moo nu fi dajale woon waaye cant gi rek dana ànd ak tuuti ñaan ndax xam ne mënal na ko dara sañ naa koo ñaan la mu soxla mbaa la mu wattu te mun ko am fii ci Daaru Minam euh, poste sant la am waaye léegi li tax mu yéeg ba mën a nekk arrondissement loolu moo tax mu war a yéeg ba mën a nekk centre de santé wala mu nekk dispensaire te ñoom ñaar def nañ solo mu loolu kon monsieur le gouverneur ñoo ngi leen xamal ne loolu aajo woon na ko lool fii ci Darou Minam ndax Darou Minam bari na gannaaw daanaka mën na maa xam ne poste attanul buñ seen mu nekk centre boo xam ne yu bare bare bare ci yu mën a gum dana ko mën ba évacuation yi sax du mën a ñàkk waaye bu boobaa tuuti lay doon loolu daal saa soo àggee yow itam ci seen kilifa ndax kilifa gën a am kilifa boo àggee ci seen kilifa yow itam nga taxaw tam du fa te jàppale nañ ci sa kem kattan ba loolu itam mën a am beneen doléance bi yu bari la waroon doon waaye benn nag laa ciy tudd te mooy yoon wi yéen da ngeen di jógee feneen di fi ñëw itam donte dëkku leen fi xam ngeen ne yoon wi métti na lool te itam sori na te itam am na jafe-jafe kon nag loolu itam saa soo xamante ne dem nga ci seen kilifa na nga ñu fa jàmbatal na nga ñu fa jooyal dina lu fa tawatal ba ñu xam ne loolu yitte na ci gox bi ndax yoon wi xam ne moo war a dem euh, Kaffrine wala mu dem Malem Hodar nga xam ne mooy chef lieu de département bi kenn ku ne xam na ne yombewul loolu te nit boo añoo barab boo fa añoon war nga di fa bari ay tànk ndax boo fa dem ay tànk lu bare bare bare dañ ko mën bu fekkente ne bari fay tànk nag dana bare bare lu bare bare lu mu la yaasal naka noonu fii ak Touba te fii xam ngeen ne li fi dëkk ñi ci ëpp ñoom Touba lañ jógee wala Touba lañ jógee seen dem foofu la ëppee waaye dem bi itam ba léegi jafe na kon nag loolu daal noonu la koy tawatam boo àggee ci kilifa yi nga xam ne ñoom nga ci war a mën a waxtaanal nga waxtaanal ceeb ñoom ndax nag wax dëgg dana nekk outil de développement yoon yi mu amee dana nekk outil de développement boo xam ne. daa nekk jumtuwaayu développement daa nekk alal joo xam ne dana dana dana dana ci dana dimbale gox xam ne ñoo ko ñoo eh, ak jaay ak tukki bokk na ci xam ne moom àdduna ñoom ànd daf leen bu fekk te ñoom yëpp itam nag loolu la ko yombal te bu amul itam dana jaaxal lu bari kon daanaka mën na maa wax ne développement daal la ñu am na lu bëree bëree bëri lu ci sikk loo xam ne lu mel noonu moo ko sikkal kon daal am nga jàll la euh, ci ñi leen tuddal bu baax a baax a baax nga jot lu ko seen kilifa yi nga xam ne ñoom nga jëm ci ñoom lii profité nag ci bis bi dëgg la waxtu yi maa ngi ciy jégalu bu baax waaye damay profité rek ndax nekk gii sëñ bi nekk fan yi dafa baax lool ci gox bi kilifa yëpp ñëw nañ seet si ko fii si si ko ñu ngi leen di sant bu baax bëgguma lim nag di juum waaye xam naa ne gox bi daal yëg nañu ko lu baax taxaw nañ ci seen kam kàttan lépp luy luy yëg wala muy teraanga def wax naa ne leen sant bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo fi dëkk seen njaboot xam ne ñu ak ñi nga xam ne ay seen surga ak seen njaboot yëpp lépp lu leen ci war def nañu ko waa dëkk bi itam moo xam mag lañu moo xam gone lañu moo xam góor la moo xam jigéen la ñu dara lëpp loo xam ne luy war a yéwénal yëwénu ngan bii def nañu kon maa ngi leen di jot li samay cant bu baax leen jot li samay ngërëm waaye li ma ci lot lot nag du tee ma ñaanal leen yàlla suñu borom tabaraka seen jot ci coono nañ ko ci fan yii ngir jëmm sëñ bi te jëmm sëñ bi mooy jëmm seen Tuubaa bi rek kon nag loolu itam ñu ngi leen di sant bu baax di sant itam monsieur le gouverneur la sant bu baax ci coono yi ngeen jànkonteel ak ñi ngeen woowee rek ngeen simple simplifié ko lool daal di ñëw gën ni mu a yow ak préfet ak sa wàllum service yi ngeen àndal wax yàlla daal ñoo a leen ci cant cant koo xam ne am na lu àpp cant koo xam ne cant bu rëy la bu rafet la dina ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëggal di ko ñoo ngi leen sant kilifa yi di leen sant di sant li sëñ bi nga xam ne moo waral bis bi itam yàlla may ko taw feex dooli ko bi man li mu bëgg ci gox bi itam xam nañ ne gox bi bëgguma ca sori am na lu ma ci wax léegi yow góor na la gox la boo xam ne jaamu yàlla rek moo taxoon mu sant ko ak liggéey ak yar njaboot bi loolu moo taxoon mu def ko bi mu ko waxtaanee ak sëriñ Basiir bi itam yàlla def mu jox ko ci ndigal wutal ko suuf si yàlla dogal bi mu ci daaxal jublu mu génn àddina waaye nee na magam bu tedd yi magam bu baax ji Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir magam bu jàmbaar ña xamal a ne ko xam naa ne am na yaa ci am digal waaye nag moom kat lépp pour ñuy aw masiram rek dafa ko fas yéene moo tax mu ànd na ñëw fii ànd ak moom rafetal ko dox ci dox yi bu rafet woo xam ne yeesu benn dox mu ànd mu nekk fii ba loolu moo waral ngeen gis dëkku boppam ñu ko def fii ci kanam foofu la suñu mag suñu kilifa Cheikh Mamadou Mourtala foofu la dëkke dem nga fa léegi seeti ko te loolu rek la ci jublu worma rek la ci jublu ngor la ci jublu jom la ci jublu ñu ne ko sëñ bi waxee léegi mi nga xamee dogal nekkatu fi itam lam ko waxoon deel nga ko xamal ko nekkoon boo ma ne boo ma jiitoo sañ sañ njaboot ñoo ko moom bu ma la jiitoo itam yaa ko moom loolee itam noonu lañ ko noonu la ko yóbbu kon nag jërëjëf Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla ko yàlla dolli ay leer yàlla ko yàlla dolli ay tawfeex te maga rakkam ji fi nekk tey nga xam ne liggéeyam boobee sof ko ca rek moo ko ñor te sof na ko ca yàlla yàlla may ko mu dox ko mu yàgg te am ci ndam am ci ndimbalam li nga xam ne moom la yéene ci gox bi yàlla def ko ci barke Sëñ def ko waaye nit ñi itam nañu góorgóorlu takku xam li mu bëgg ci wàllu yar xam li mu bëgg wàllu teggin xam bi xam ne itam moom la bëgg ci wàllu jub te jub gi ñëpp moom la bëgg suñu barke administration bi jub rek la ñu bëgg bëgg lu jub rek moo tax ñu nekk fii kon nag jub boobu nañu ci góorgóorlu seen jëm kàttan te xam ne loolu rek moom la moo koy bukkam te loolu rek mooy mooy a mooy aajoom ci moom kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bëgguma lim di juum waaye wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. asalaamaaleykum mbokki jullit yi salaamaaleykum mbokki taalibe yi salaamaaleykum sëriñ Koso Mbàkke yaag say mbokk muy sëriñ Abdoulaye sëriñ Ibra sëriñ Cheikh ak njaboot gi fi nekk yëpp maa ngi am mbégte jël kàddu ci délégation bi ma àndal te ñu ràññee ci rek préfet Mamadou Gueye bu préfet Malem Hodar ak Ousmane Sané sous-préfet bu Daaru Minam 2 ak chef de service régionaux départementaux ak locaux yi ci nekk damay tàmbale rek indi nuyoo bu président Macky Sall bu premier ministre Mohamed Abdoulaye Dione bu gouvernement bi yëpp mu jaar ci sa loxo yaag sa mbokk yu tedd yi mu yegg ci Sëriñ Muntaxa Basiru mi nga xam ne mooy borom dëkk bii président ñu ngi koy nuyoo nuyoo bu sell nuyoo bu rafet mook njaboot yëpp di ko ñaan it boobu mu yeggal ko ci xale général des mourides sëñ Cheikh Sidi Makhtar Mbacke ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp bu ma jóge foofu it mu nuyu ñi nekk fii ci jataay bi muy kilifa yi mel ne maire dëkk bi ak maire yi fi nekk ak chef de village yi ak képp ku fi nekk rek ci titre boo fi nekkee nuyu nañ la ziara nañ li ñu fi tey mooy ambulance bii nga xam ne Serigne Mountakha da koo jagleel poste te loolu di lu rëy loo xam ne it kilifa yi réew mi tàmbalee ba ci président premier ministre ak madame Awa Xol Seck ñun ñëpp am nañ ci mbégte am nañ ci bànneex te ñu ko ci sant di ko ci gërëm ndaxte dafay lu am solo ndax xam nañ mbay wér-gu-yaram li nga xam ne ëpp na ko ci politique gouvernement bi ak li ci gouvernement bi yéene ak li mu ciy def kon nag lu am solo la gouvernement bi ngi defar ay case de santé poste de santé centre de santé ba hôpitaux yi di recruter it ay junni junni agent leen dugal ci dispensaires yeeg hôpitaux yi pour ñuy sàkku wér yaram nit ñi waaye xam nañ ne loolu lépp taxul mu doy ndaxte suñu état de pays su développé moo tax li ñu bëgg lépp mënuñu ko def ndaxte santé mi ngi fi waaye éducation mi ngi fi infrastructure yoon ñu doon wax léegi am na fi te gouvernement fu ne day cof dugal fa njaaxaanaay lay tëddee lu mu yéene yéene am na niveau yoo xam ne ci budget bi mënoo ko caa passé kon nag képp ku jóg indi sa contribution ci domaine bu mel ne bi yaa ngi koy jàppale yaa ngi koy encouragé royukaay la lii suñ mun taxaa def képp koo xam ne yàlla jox na la loo xam ne mën nga koo def wane na yoon wi ndaxte jàppale gouvernement bi jàppale askan bi loolu rek suñ daje fii rek am na njëriñ pour loolu pour loolu kon nag ñu ngi euh, gërëm ñëpp sant ñëpp wax waa dispensaire bi infirmier de poste bi président comité de santé bi membre comité bi nañ ci taxaw bu baax a baax yor ko duñ ko war a yore duñ ko war a def entretien def ko duñ ci war a def ñu def ko ba te fexe ba mu yàgg fi loolu aussi moom la ñuy xaar ci yéen ndaxte lu mu baax baax lu mu am am njëriñ bu fekkente ne dañ koy jox sofër bu mu dawal wala ñu ko def loo xam ni bu yàggee day indi ay difficulté yoo xam ne ñu naan paan la paan comme sant mënu koo defar yooyu yëpp ay jafe-jafe lay indi rek nañ ko yor yoreen bu baax a baax jox ko ko mën a dawal mu ko dawal luñ ci war a def ñu def ko ci ñun problème mu poste de santé bi médicament yi nga xam ne dafa la ko yëpp préfet rendu na ko ñun yóbbu nañ ko ah, envoyé ko ministre de la santé waaye ñu ne wax ñu leen gën a soññaat pour que ñu jàppale leen xam ne ne amuñu moyen yoo xam ne pour remplacer médicament yooyu ci biir bu gàtt yoon wi moom jógee bi ñu toog rek ñu toogee ci département de Malem Hodar defoon benn programme boo xam ne proposé ay désenclavement bu département bi zone bi bokkoon na ca maa ngi waxtaan ak moom léegi sax ne ko dañu gën a waxtaanaat mais am na lu mu defoon dèjà ba yónnee woon nañ ko mais ni nga waxee dañu seet ban traitement di réservé ak moom axe bi muy bii nga tudd léegi bu soobee yàlla danañ ko yeggale ci kilifa yi